asalaamaaleykum mbokk yi déglu daleen ak jàmm projet de loi d'amnistie bi yegg na fa li nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale autolikaay bii di Sud Quotidien bi ngi ñuy xamal ne projet boobu de démb la ñu daal di leeral nag li nga xam ne moom moo ci nekk nañu jàpp ak autolikaay bii di Sud Quotidien ne ci biir projet de loi boobu dañoo fas yéene nag faase lépp loo xam ne jublu na ci wàllu ñaawteef yoo xam ne dañu ko defee li ko dalee atum 2021 jàpp 2024 autolikaay bii di Sud Quotidien sax la mu ca gis moom mooy xew-xew yooyu nga xam ne kon moom moo fi amoon dafa mel ni kon ne yi dafa bëgg ñu daal di koy faase ci suñu xel maanaam daal dootuñ ci waxati dootuñ ci liñatu kenn dootu ko lam-lamee jolikaay bii di Sud Quotidien ne kon dafa mel ni ne njiitu réewum Sénégal di Macky Sall pare na rek ngir fexe ba lépp loo xam ne dafa jublu ci wàllu projet de loi d'amnistie googu nga xam ne nee na yeeyaay daf ko fee bëgg a taxawal ngir fexe rek ba jàmm daal di am laata nag muy jóge ci boppu réew mi projet de loi boobu dee Macky pare na nag ngir ci nu mu gën a gaawee ñu daal di ko yóbbu ci assemblée nationale daal di ko fay voté wante jolikaay bii di quotidien mi ngi xamal ne bëri ñoo xam ne ànduñu nag ci wàllu projet de loi boobu ñu ràññee ci ku ci mel ni Thierno Bocoum moom sax moom moo jiite li nga xam ne moom mooy agir moom ci benn bataaxal boo xam ne yónnee na ko waaw coolikaay bii di Sud Quotidien daal dinay xamle ne nanguwul tey nanguwul ëllëg nag projet de loi boobu nga xam ne Macky Sall daf ko fee fësal te nag li mu ciy séntu rek moom mooy fexe nag ba ñi nga xam ne ñoom ñooy politiciens yi ak ñeneen ñoo xam ne dañoo def ay ñaawteef li ko dalee 2021 jàpp 2024 ñu fexe nag yi nga xam ne moom la ñu di teg ci seen ndodd jolikaay bii di si quotidien it di ñu xamal ne ci mel ni it Thierno Alassane Sall mi jiite république des valeurs moom it àndul nag ci li nga xam ne moom mooy projet de loi boobu le quotidien ne li am ba des daal moom mooy ne projet de loi boobu képp ko xam ne kon def nga ay ñaawteef li ko dalee février 2021 jàpp février bu la yeboo nga xam ne dinañu ko faase lépp lu ñu tegoon jaar fa nag ba lépp loo xam ne daf koy tere mu nekk candidat loolu ñu daal di koy faxas wante julikaay bii di réew mi quotidien gëmul lool de naata ñu ngi ñuy xamal ne Diomaye moom na profito li nga xam ne mooy projet de loi d'amnistie boobu ji la muy laajte moom mooy tey ji su fekkente ne nag voté nañu li nga xam ne moom mooy projet de loi boobu kat moo ci fas yéene bànneexoo wante suñu naataango yi la ñu gis moom mooy ne nekk na nag ab porox ndoll goo xam ne daal Ousmane Sonko war na cee mën a jaar ngir lépp loo xam

moom mooy projet de loi bi daal di jàll kono julikaay bii di critique gis ne euh, Macky dafa fas yéene nag forcé ngir projet de loi boobu jàll ndaxte ñi nga xam ne ñoom ñooy ay député am ngir rek mu daal di mucc ayib le soleil mi ngi ñuy xamal ne njiitu réewum Sénégal di Macky Sall démb daal dinañu koy jébbal rapport bi nga xam ne moom moo jógee euh, ci dialogue national bi julikaay euh, bi di le di ñu xamal ne njiitu réew mi bu ca jógee nag dina ko daal di jébbal waa conseil constitutionnel ñoom it ñuy ñëwaat ci wàllu procédure d'urgence bi nga xam ne fa la yóbbu projet de loi d'amnistie bi fële nga xam ne de euh, moom mooy ci assemblée nationale wante ci lu jublu euh, ci wàllu date bi nga xam ne dañu ko war a tànn ngir amal li nga xam ne de moom mooy élection présidentielle bi euh, julikaay bi di l'info mi ngi ñuy nga xam ne dañu ko doon waxtaanee ci wàllu commission bi war a tànn date bi ñoom daal dina ñuy ñëwaat ci yenn ci ay xew-xew diine yoo xam ne daal moom moo tax ba ñu daal di puus date bi ba ci ñaari fan ci weexu juin suñu natango yi di ñëwaat ci wàllu weeru koor geek kooru suñu mbokk kerceen yi ak daaka bi ak tamit feetu Pentecôte loolu moom moo tax ba ñu daal di pousse li nga xam ne kon moom mooy élection présidentielle bi ba ci ñaari fan ci weeru juin wante yow colikaay bii di l'info la mu gëm moom ñu amal élection euh, présidentielle ci ñaareelu tour bi ñetti fan ginnaaw ba ñu weesoo feetu tabaski li am ba des daal colikaay bii di point actu moom la mu gis moom mooy ne Macky ma ngay def lépp nag laata muy jóge ci bopp réew mi ndaxte fu mu nekk di sax bëgg na processus électoral bi ñu daal di koy tàmbaliwaat loolu sax sax ba moo tax ba ñu daal di puus nag élection yi ba ci ñaari fan ci weeru juin te bu boobaa nag ki nga xam ne de moom mooy Karim Wade Ousmane Sonko mën nañoo ngi ñee a ci bopp réew mi te moom su fekkente nag teg nañ ko fa kon processus électoral bi dañu koy tàmbaliwaat aujourd'hui kay bi di moom mu ngi ñëwaat ci koppar gu toll ci fukki milliards ak benn goo xam ne kon dañu ko daal dugal fa li nga xam ne moom mooy ca lycée Limamou Laye ngir fexe rek ba ñu daal di koy yeesalaat wante dafa mel nag ne cour suprême am na yenn ci ay linti linti yoo xam ne daal gis na ko nag ca nañu doxalee ci wàllu marché googu ndaxte nga xam ne moom la ñu dénk travaux de reconstruction yooyu euh, jaarul yoon ñu jeexale ko ak vieux mi nga xam ne ci biir colikaay bii di Sud Quotidien ma ngay delloo njukkal ki nga ne moom mooy Serigne Babacar Mbow moom taalibe Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall wante ràññee nañu ko nag ne def na liggéey bu am solo eh, ci gox bi nga xam ne kon moom mooy ndem nekk benn village bu nekk ci biir Bawol soriwul sax fa li nga xam ne moom mooy ca Bambey moom moom di Serigne Babacar Mbow Vieux Savané daal di gis ne ku xarañ la ci wàllu développement endogène rax ci dolli la mu liggéey foofu nga xam ne kon moom mooy ca Ndeem fexe ba jëlee ko nag ci village bu ndaw daal di koy eh, soppi mu nekk ab bërëb boo xam ne tey jii bu am solo la nee na loolu jar na ñu daal di koy delloo njukkal ñoom sax ñu koy ñëwaat ci ab article boo xam ne bindoon nañu ko ci weexu novembre atum 2012 nee na la ñu a a mesdames et messieurs bonjour le projet de loi d'amnistie est actuellement dans les couloirs de l'Assemblée nationale c'est cette fameuse loi d'amnistie convoquée par le chef de l'État Macky pour apaiser la politique à la veille de son départ du pouvoir et aujourd'hui dans Sud Quotidien nos confrères nous présentent l'exposé des motifs de cette future loi d'amnistie en clair retenons que sont amnistiés de plein droit renvoie tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tout support de communication que leurs auteurs aient été jugés ou non. Donc ces faits ne feront l'objet d'aucune suite judiciaire, ajoutent nos confrères du journal Sud Quotidien 2021 à 2024 ont été tout simplement rayés de l'histoire. Et à travers cet acte, Tchernobokoum trouve que le président Macky fait preuve d'un aveu de culpabilité sur sa responsabilité sur tout ce qui s'est passé durant cette période. Tchernobokoum déclare dans une note parvenue à nos confrères du journal Sud Quotidien que ce projet de loi du chef de l'État à Macky est juste un manque de respect notoire au peuple sénégalais, car le projet vise à amnestier de passible de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le er février et le février Et le chef de l'État cherche ainsi à faire table rase sur tous les crimes ignobles et délits qui ont secoué ce pays durant la période visée et sur lesquels d'innocentes victimes espèrent que la lumière jaillisse afin de penser leurs blessures. Il faut aussi signaler avec nos confrères du journal Sud Quotidien que Tierno Alassane la

qui profitera le plus de ce projet de loi d'amnistie car Sonko est hors champ. Nos confrères de Besby le se posent la question de savoir à qui profite le projet car c'est une amnistie pour certaines déchéances liées au droit de vote et d'élection, une fenêtre de sortie pour l'éligibilité de Sonko. Cependant, le collectif non à l'amnistie dénonce une forfaiture. Nos confrères de Tribune trouvent aussi que ce projet de loi d'amnistie est une honte civile et politique opposent leur veto et nos confrères du journal L'Évidence, eux, nous signalent que le chef de l'État, Macky n'en a Il active ses députés pour faire passer euh, ce projet de loi. Donc ce sera un funeste forcing d'État par rapport à ce projet de loi d'amnistie, euh, concèdent nos confrères du journal Critique et nos confrères d'ajouter que si cette loi est votée par l'Assemblée nationale, elle s'appliquera sans égard de la plainte populaire façon des faits indélébiles dans la mémoire collective. Le chef de l'État Macky a reçu hier le rapport du dialogue national et selon nos confrères du quotidien Le Soleil, il compte dans les prochains jours saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur la date du juin proposée pour l'élection présidentielle mais aussi laprès avril, date butoir de la fin de son mandat. Et nos confrères du journal L'Info de revenir donc sur la plénière Ramadan, le carême, le Dakar et la Pentecôte ont été évoqués pour justifier l'impossibilité d'organiser la présidentielle entre mars et le mois de mai. Donc pour nos confrères du journal L'Info, c'est le beau prétexte des événements religieux qui a été à l'origine du choix de la date du 2 juin pour la présidentielle. Cependant, nos confrères se demandent si l'argument des fêtes religieuses tient vraiment la route car lors de l'alternance de il y a eu une été tenue trois jours après la fête de Tabaski. En tout cas, en choisissant la date du 2 juin, nos confrères du journal Point Actu trouvent que le chef de l'État, Macky Sall, est en train de manœuvrer au sommet de l'État et Macky Sall abat ses dernières cartes, titre nos confrères du journal Point Actu qui ajoute que le chef de l'État tient à la reprise du processus électoral et à la loi d'amnistie. Karim Wade et Ousmane Sonko seront remis en course et le président de l'Assemblée peut-être assurer l'intérim et dans le processus électoral risque d'être repris. Parlons avec nos confrères du journal Libération de ces milliards de francs CFA engagés dans l'opacité totale concernant donc les euh, travaux euh, de reconstruction du lycée Seydina Limamoulaye. Nos confrères euh, nous expliquent comment la Cour suprême a remis en cause toute la procédure après avoir constaté que le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion ne s'est pas conformé tiers du marché après dépouillement. L'entreprise Exbat a été écartée sur la base de procédés frauduleux. Et nous terminons par cet hommage rendu par Vieux Savané à Serine Babakarmbo qui est décédé dans la nuit de vendredi au samedi euh, mars. Il a été inhumé à Mbake où il s'était retiré avec sa famille et ses disciples pour les besoins d'une mission d'aménagement que lui avait confiée Serine Cher Djumbofal, Khalif général des Baïfal. Et dans ce quotidien, forcément continuer de s'émerveiller pour ce qu'il a pu construire et s'interroger sur ce que le Sénégal aurait pu devenir avec la démultiplication par les autorités politiques de l'expérience initiée à Ndem, un petit village du Baol situé à quelques 12 kilomètres de Bombay. Et Serigne Babacar a su avec simplicité, pragmatisme et audace transformer le foyer ancestral en terre d'opportunités. Aussi, pour lui rendre hommage, nos confrères de Sud Quotidien ont ressorti un article publié en novembre 2012 qui place dans lequel ne cesse de patauger le Sénégal, un article fait sur l'homme publié en novembre 2012. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.